ci diggante tànk Alioune Mbaye Ndeeri Batista arbitre baa ngi laaj ay na Alioune Mbaye Nder Batista Alioune Mbaye Nder Alioune Mbaye Nder moo ñëwoon Batista lañ jàkkaar lool mbokk yi grand combat baa production Batista wàcc na ba tolloog Ali Mbaye Nder moom Batista moo ngi demee wet Batista teg pied gauche Ali Mbaye Nder teg pied ma su ma taxawee xool ko ci biir bët su nekkee ragal ma xeex ak moom su dëgalee boppam dang ba dee na ko daw na jël ko daan na ko daan na ko oh Batista da koo doo dafa dóor Ali Mbaye Nder lu xew da koo doo bu dal Ali Mbaye daw yooru mu sol ko balaake ko. plaqué ko mu jaaxaan Batista daan na Alioune Mbaye Nder Alioune il n'a rien compris Alioune Mbaye il n'a rien compris Batista Batista daan na Alioune Mbaye Nder vite fait bien fait xa abi dafa sifflé mu dem moom wet cokaas ko gauche droite Alioune Mbaye Nder mu doo ko bu dal Alioune Mbaye Nder yooru mu siggee ak moom añ ko suuf doo ko placage bi Alioune mbay Nder résisté mu yeggali ko moom Batista daan na Alioune mbay Nder jël bu leer.